acca jërë ngeen jëf euh, yéen sunu mbokku internet bu 221 people ñoo ngi leen di nuyuwaat di leen di jaajëfal bu baax di ci delluwaat rek ku nekk sa wàccuwaay amaat li di kontaan ak mbégte bu baax nag comme ni ma ko faral di def saa su nekk ak kilifa yi wala sëriñ boo xam ne dama laa dalal ci biir site bi rek damay fas yéene ñu waxtaan xam-xam yaatal ci bu baax a baax acca ki may dalal tey nag moo di sëriñ Baye Samba dinañ waxtaan ci xam yaatal ci waaye xew-xew jamono ni ma ko saa su nekk dinañ ci waxtaan waaye ku bëgg a dégg rek xam ne ne tey ngeen dégg ndax nee na ma laata ñuy tàmbali tey rek nga fiy dégg révélation nit ñi di waxtaan ci suuf te ñemewuñ ko tey ma jàllale ko sëñ bi damay bàyyi nga nuyu mbokk askan bi alhamdulilah asalaamaaleykum rahmatullahi taala wa barakaatuhu allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatili hima uxuliqa walxaatimi lima sabax naasiril xaq bilxaqi walhaadihi ila siraatika almustahim wa ala alihi xaq xadrihi wa mixdaari azim mbokk sénégal mbokki àdduna ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di ñaanal suñu kilifa diina di leen nuyu di leen siyaara ak suñu kilifa aada di nuyu waa 221 people seen taxawaay ci askan wi fu sëriñ nekk rek ci àdduna bi yéen a ngi fay dem pour gëstu ji kon loolu moo nekkoon suñ nuyoo salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu jërëjëf sëriñ bàyyi sàmba tey nag dinañ waxtaan ci xam-xam yaatal ci waaye xew-xew jamono dinañ ci waxtaan ba ma ñëwee nee na ma Cheikh ma ne waaw mu ne dinañ waxtaan ci xam xew-xew jamono di actualité dinañ ci waxtaan li ñi nanguwut a wax te man ma gis ko président Ousmane Sonko dina wuji wala du wuji nee na dinaa la ci wax lu leer troisième mandat dina am wala du am dinaa la ci wax du dee xew-xew jamono nag am na lu mu ci gis nee na dina ci yaatal bu baax a baax ndax li mu gis mu ñëw ci fan yu néew doy na waar jàpp leen ne tey nag lu nekk dina ko fi yaatal ndax waaye da koo gis waaye ci xam-xam la ko wéer saa su nekk. atia dama ñëw ci ngóora bi nga xam ne yaa ngi koy faj te kenn werante togo ñu dellusiwaat ak ni nga koy faj saa su nekk. alhamdulilah comme niñ ko waxee woon rek ñu ngi nuyu ñëpp beneen yoon di leen waat waaw sëñ Cheikh li nga ma laaj yàkkamti woon naa ci tontu moo nekk wàllum ngóora parce que daanaka duma ci doon bëgg di wax mais force ma wax ci parce que chaque jour rek maa ngi gis nit ñi ñu ngi ciy wax. ku nekk naan maa ngi faj ngóora maa ngi faj ngóora waaye anam bañ koy fajee man d'accordu ma faj boo xamante ne nii da ngay faj nit ki bu ko jëlee yëg boppam yëg ne moom góor la waaye bu ko jëlul du yëg ne góor la man loolu d'accordu ma man faju ngóora gi ma yor dafa nekk faj boo xamante ni dalay topp ba sa giiru dund fekk yaa ngi koy utiliser boo ko utiliser beneen sa dund gi jeex na jaratu nga koy jëlaat waaye ñi ma gis ñu koy faj ñu ci bëri dañu naan soo demee bay seeg sa soxna na na nga utiliser garab gi benn nga naan ko wala nga takk ko boobaa di nga yëg kattan goo xam ni daanoo koon yëg man loolu d'accordu ma li ma d'accord daal maa ngi yor gàllaaju ngóor goo xamante ni képp ku yàlla dogal ñu jëflante ci incha allahu taala li des sa giiru dund dootoo soxla li nga xamante ne ni mooy utiliser li ñu naan ngóora parce que dafa sonal àdduna bi fi mu toll nii képp koo gis li mu lay wax moo nekk ne dama néew kàttan su may sëyeeg sama soxna du ma yëg sama bopp wala su ma yëgee benn yoon damay gaaw a daanu te loolu yaakaar naa ne war nañ cee dimbale waa Sénégal war nañ ci dimbale waa bitim réew rawatina àdduna bi yëpp war nañ leen cee dimbale ci cadre boobu kon daal sëñ Seex gàllaaju ngóora ñu ngi ci yor loo xamante ne nii képp ku ñu seet dinañ la jox loo xamante sa giiru dund lay topp loolu lañ ci mën a wax rahmatullah am na solo jërëjëf euh, sëriñ baay Samba ñu dox ba léegi yaatal dellusiwaat dama ñëw ci émouride booy dégg naa ñu bari di la koy jiwee ndax yaa ngi ci def résultat yu solo ñu dellusiwaat ci. waaw sëñ Cheikh li ñuy wax émouride ñu ngi ciy def résultat yu doy waar parce que émouride tamit bokk na ci li sonal nit ñi. néew na nga jëflanteeg benn ñaari ñett te waxuñu la damaa émorit ñu ngi ci yor gàllaaj goo xam ne bu yàlla dogalee nga jëflanteeg ñun bañ la ko jox di nga xam ne yi ñu la doon jox yëpp dañ doon làmbatu rek waaye gàllaaju émorit gi wér ci fii rek nga ko mën a amee ci sëriñ Baye Samb borom tawféex kon loolu daal lañ la ci mën a wax képp ku soxla gàllaaju émorit yor nañ ci boo xamante ne ni bu ñu yàlla dogalee ñu jox la ko di nga xam ne bii nga jël ak bi nga daan jël du doon benn loolu daal lañ la ci mën a wax tamit dañuy ñëw ci kaaraange mu di protection ku ne gis na xew-xew yi fi am rawatina accident yi ku ne gis na lu mel ni agression bi ak ni mu mel waaye yow am na loo xam ne ku la seet si ba ñëw jëflanteeg yow du ko euh, rëccoote ñu dellusiwaat ci kaaraange boobu waaw kaaraange moom li ma ciy wax moo nekk ne ndaw bu nekk wala doomu aadama bu nekk war nga di dox ci kaaraange ndax fi jamono tollu moo tax dañoo toll jamono joo xamante ni bu yàlla dogalul nga kaaraange rek ku gàtt fan ngay doon mm-hmm. te yaakaar naa ne képp ku nekk di dund bëgg nga gudd fan te gudd fan nag bu ko yàlla dogalee ba pare kaaraange daf ci am solo kon ñu ngi liggéey gàllaaju kaaraange yoo xam ne nii ku yàlla dogal ba ñu seet si di nga xam ne am na ku nekk sa ginnaaw koo xamante ni ci wàllum kaaraange moo ci mën mbooleem sëriñ booy gis fii ci Sénégal loolu moom ragaluñ ci benn yoon ci wàllum kaaraange <laughs> am na lu ma gis nga téye ci loxo bi man nag damaa sob lu ma gis parfois dama koy laajte pour rien que ñi nga xam ne dañuy ñuy topp mën a xam njëriñ li ak ci lan lay dox li nga téye nii mooy lan ak ci lan lay dox. lii la ñuy wax poqe am nañu ñu koy wax tamit fenkele am nañu ñu koy wax poqe am nañu ñu fenkele boo demee ci bundu daanaka ñu bëri xam nañ ko foofu moom daanaka gàllaaj gu ñuul rek moo fa am ñu ngi koy jëlee bu foofu foofu lañ ko jàngee te yaakaar naa ne képp kuñ ci yeew bu fekkente ne jigéen joo xamante ne da nga bëgg jëkkër yàlla dogal na ki ngay bëggantee mun na ñëw takk la bu ñu la yeewee ci poqe gi ci gàttanu yàlla diir bu gàtt dina yónni ay mbokkam ñëw takk la bu dee góor goo xamante tamit dafa bëgg soxna te yàlla dogal mu yéex bu ñu la yeewee ci lii yàlla dina dogal sëy boobu dina am lii daal ci gàttal daal moo nekk poqe ci la ñuy liggéey mboolem nopp boo xamante ne ñu ngi ci liggéey ak doomu aadama te képp kuñ ci yeew dóora ci incha allahu taala am na solo aja ci xew-xew jamono dina ñëw yaatal ci bu baax a baax ku ne gis na ku jël langue politique bi ni mu mel fan yi féewaloo bi bëri na coow li bëri na indi président Ousmane Sonko euh, jàppal fële te coow li bëri na lan ngeen ci mën a wax ndax fi mu ne nii ah doy na war de. waaw li ma ci gis daal ci gàttal moo nekk gis naa ab hélico boo xamante ni mu ngi tiim Sénégal di roose. deret yu bëri dina bëri dina tuuru ci gàttal deret yu bëree baree bëri dina tuuru fii ci Sénégal fu président de la république reculé wut maa ngi yaakaar ne bakkan yi rotoon ci vingt 2021 lu ko ëpp dina rotaat. jàmm def parce que ñu ngi gis hélico boo xamante ne ni mu ngi tiimu Sénégal di roose waaye nag ña muy roose xaw ne leen te xaw ma fu ñu jógee. waaye li muy roose sëñ bi li muy roose lan la. li muy ay bal la yoo xamante ne ni te yooyu moom yaakaar naa ne deret ju bëri rek la ñuy jural. moo tax daal li ñuy wax moo nekk ne. président de la république na dellu ginnaaw bàyyi lépp mu sedd su ko moyee réew mi dina tàkk te bu tàkkee kenn dootu ko mën a fay troisième mandat bi it looñ ci mën a wax ndax gis nga ko fi mu ne nii ku ne gis na ne matuwaay gis nga li mu recruter ci sécurité bi gën koo kaaraan gën ko yokk lu tolloog mille yoo xam ne ay takk der lañ loolu pour lan la lu xew ndax dañuy jëm kër wala lan la. loolu yëpp préparé boppam la parce que bëgg na dem troisième mandat te ñemewu ko wax. day bëgg recruter ñoo xamante ne bés bu waxee ne troisième mandat am na rek ak yóbbu Ousmane Sonko pro rek pour ñooñu mun kaa défendre la waaye loolu génnewu ko ci tey Ousmane Sonko du dem procès bakkan yu bëri ñooy rot rek waaye Ousmane moom du dem bu ko naree yóbbu procès moom Sénégal ñëppay dee ba jeex. duñ wooloo nag. waaw duñ ko wooloo tamit du tax mu dem parce que li bootu ci ginnaawam moo bari Ousmane yàlla def ko may mu nekk nit koo xam ni nit ñi dañ koy déglu ñi bootu ci ginnaaw bari nañ bari goo xamante ni te ñi bootu nga di leen gis ñi bootu te gisoo leen moo ëpp doole. moo ko namoon de bëggoon ñu def procès. waaw moo ko namoon mais li ànd ak moom ñoo koy bañ Ousmane tey bëggoon na demit ñi nga xam ni ñoo ko jege duñ nangu mu dem. wala daa ñemeetu daam lu xew. Ousmane amul li muy ragal parce que li ngeen di gis ñu topp Ousmane ñi ko topp te gisuleen leen ko ñoo ëpp doole téeméer ju neen ñooñu kon Ousmane amul lu muy ragal. bu fa faa jëlee dara ay gàllankoor. waaw bu fa duggee mën na fa jëlee ay gàllankoor moom la ñu bëri xam wala moom la ñu bëri yaakaar moo tax ñu ne du dem oji mais Ousmane ci jëmu boppam xam na ne bu demee oji tiga du toj jàmm rek la fay jëlee incha allahu taala. du doon feebar du doon benn loraange. du feebar doon benn loraange ndax Ousmane dañ kaa préparé ba pare dañ kaa préparé ba pare kon ci lan ngay tàggatoo ñu tënk ko jëmale ko ci xew-xew jamono ci lan ngay tàggatoo. waaw li may tàggatoo moo nekk suñ gouvernement bi nañ xoolaat seen réew mi bu baax a baax a baax parce que réew mi fi mu toll nii doy na waar doy waar goo xamante ni président bi nga xamante ni ñun ñëpp moo ñu boole xelif moom moo war a reculer réew mi bu baax a baax a baax waaye tamit suñ kilifa diine yi nañ àddu ci lii parce que ñoom ñu ci bëri ñu ngi noppi ñenn ñu ngi wax waaye daal li ma bëgg moo nekk na ci ñëpp wax. waaye kilifa diine am nañu commencé di di wax parce que gis naa ci Cheikh Maye Niass xalifa Medina Baye Cheikh Ibrahim jégg naa mu coobare moo taxoon mu dem ay soxlaam la ko doon diis. waaw nit ñi dañuy wax rek fii lépp soxlaay Cheikh Mahi la parce que xalif général la soxlaay àdduna beeg soxlaay boppam lépp soxlaam la parce que ku jógee fii dem ba. bitim réew faji fa ay aajo ñu siwaat yaakaar naa sàkkantuma ak sa réew Cheikh Mahi même bu fekkee ne soxla boppam moo ko fa yóbbu du dem ba ci président de la république ba pare te waxut ak li nga xamante ni moo xew ci àdduna bi moo xew ci réewam mi. ñu bala nga tàgg waaw li may tàggatoo moo nekk maa ngi nuyuwaat ñëpp di ziare ñëpp di leen wax ne daal li ma leen waxoon ci début bi nañ nañ góorgóorlu képp ku nekk ci réew mi jamono ñi ñu toll na nga fexe nga ut kaaraange xam ne réew mi fi mu jëm ku ci yàlla dimbalul nga am kaaraange di nga dee deegoo xam ne deegu ñaaw lay doon waaye tamit maa ngi xiirtalaat ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp réew bi nañ bàyyiwaat seen xel ci àddina xam ne nguur day jeex nguur ak yàlla gi rek a dul kon loolu daal moo nekkoon sama tàggatoo yéen ginnaaw bi ma leen gërëmee sant leen taxawaay bu rafet bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa